jërëjëf ñu ngi leen di sant di leen gërëm di lu teewaay bi ñuy teewaw tey fii ci euh, CFM nga xam ne ñoom mën nañu wax ne suñu ay partenaire lañ ndax depuis ñu commencé def ziare bi fekk site bi juddu à chaque année bu ñu leen ko waxee danañ ci taxaw taxawaay bu rafet tey ren mooy suñu ñaareelu yoon ñu ñëw fii euh, comme ni nga ko waxee nag ziare bi lan moo ko waral mooy El Hadj Abdoulaye Cissé ñu koy wax borom jaamal nekk nitu yàlla bu ñu xam ci réew mi bokk ci góor yàlla yi nga xam ne liñ liggéey ci réew mi dañoo ñun dañoo jàpp ne ba léegi euh, nit ñi niñ ko war a xamee dafa des waaw surtout ndaw ñi parce que jàngalekat bu mag la woon yarkat bu mag la woon te itam li mu liggéey ci diine dafa bari te dafa yaatu lool loolu sax bokk na ci ren thème yi nga xam ne moom lañ tànn mooy El euh, Hadj Abdoulaye si borom jaamal ak jikko yi parce que dañu gis ne dañ toll si jamono boo xam ne jikko yi dafa commencé yàqu li tuddee crise de valeur dafa commencé di bari ndaw ñi amatuñu référence ndaw ñi amatuñu repère ñu ne nañ def thème boo xam ne dañ naan El Hadj Abdoulaye Cissé ak jikko yi maanaam nan la ñu mën a fexaatee ba jëlaat ndaw ñi euh, xamal leen ne ñoom kat ay ndaw lañ ndëkk ci dëkk bu mel ni Sénégal boo xam ne am nañ fi ay mag ñoo xam ne maanaam référence lañu loolu moo tax ren ñu tànn thème boobu fas yéene ci woo ay borom xam-xam àjjuma ci guddi bu 9 jotee. incha allah ci ñi gën a xam ci ñi koy def bokk na ci docteur Thierno Ka mi nga xam ne moo nekk directeur institut islamique de Dakar ak euh, docteur Jim Ousmane Dramé nekk chercheur moom itam ci IFAN kooku itam bokk ci ñi ko xam ne ñoo koy def ak oustaz Ahmadou Satou Cissé nga xam ne kenn la ci ñi nga xam ne li ñu bind ci borom jaamal mën naa wax ne ñu bëri ñuy bind ci moom la ñu référé wu ak euh, oustaz Alioune Cissé nekk euh, Thiès lycée Malick Sy bu Thiès. ñooñu la ñu tànn ren incha allah ñu fas yéene waxtaanal ñu ci góor gi maanaam ci dundam ci ci jaar-jaaram loolu mooy programme vendredi bi ci ngoon loolu itam ñu ngi ciy woo mbokk Sénégal yëpp di ci woo xalaat kat yëpp di ci woo ndaw ñi surtout waaw nga xam ne comme ni ma ko waxee sama njëlbeenu wax dañ toll si jamono boo xam ne maanaam ndaw ñi dafa mel ni amatuñu référence waa ñu bëgg leen a wan ne ci réew mi nag am nañ fi mag ñoo xam ne maanaam lu ñu tuddee référence waratuñ ko jéggi waratuñ ko jéggaane feneen waaw am nañ ko ci réew mi te itam mag ñiñ fi am nga xam ne am na ñeneen ñoo xam ne ñu ngi jógee bitim réew di ñëw di xool seeni jaar jaar di xool seen i mbind di xool seen i wàllu éducation liñ ci liggéey te ñu gis ne li ëpp ci ndaw ñi référence yooyu nekkul si ñoom loolu moo tax ñu ne ren incha allah dañuy jël thème boobu jagleel ko ndaw ñi pour defar leen ko loolu mooy programme vendredi bi. waaw waaw bu ñu la boo ma laajee kan mooy borom jaamal danaa ci sawar ndax man euh, sama papa mooy taaw El Hadj Abdoulaye borom jaamal. donc mo ñëk a nekk xalifa borom jaamal euh, Alaaji Abdoulaye Cissé doomu salum la mu ngi juddoo dëkk bu ñu wax wanar way juroom bu goor mu ngi tudd Alaaji Ousmane Cissé way juroom bu jigen mu ngi tudd hawa khadi Ndombe donc wanar gogol la juddoo fa la jàngee alcorane ba man alcorane ba fa joggé dem dekk bu ñu wax ndiaw Bambali fa la jàngee xam-xam fa la commencé jàng alcorane ba man ko bu baaxa baax bim ko mané mu wanar ci way juroom Euh, fasiyene jang jàng lu ñu tuddee xam-xam euh, bi mu fa commencé yalla def nijaayam bu wax Serigne Por Dramé bindal ko ben letter yebal ko mu dem ci Mamour Anta Sali Mbacké ci Mbacké kadior donc fa la dem fa la jangé xam-xam ak lu bari ci li ñuy tuddee xam-xamu sharia fa la ko jangé ba fa défé ñenti at mu joggé fa dem ndar ci dëkk bu ñu wax euh, ci kër gu ñu alaaji Ama Njaay wax nañ sax fa la daje fa la daje ak Seydi malik mom itam fekk mu joggé gaaya ñëwoon ndar di sàkk si xam-xam ñoom ñaar ñu bokk dajee ci bërëb boobu nekkandoo fa ab diir ma jógee fa ci résumé ci gàttal parce que histoire bu gudd la ci gàttal bi ñu fa jógee dem gànnaar Mauritanie parce que jamono boobu daaw ñu wax Mauritanie waaye mag ñi gànnaar lañ daan wax mu dem gànnaar dafa fukki at ak juróom ndax boobu ci réew mi dafa am xam-xam yoo xam ne mag ñi fi nekkoon dañ ko daan dégg rek waaye daaw ñu gis ñu leen koy jàngal bokk na ci xam-xam yooyu lu ñuy tuddee elmu elmu nafs maanaam xam-xam la boo xam ne amutoon ci réew mi li ñuy tuddee astrologie xam-xamu biddiw nga xam ne mun na wax ne ba fi may waxee yow jaamal ñu ngi koy jàngale te wax naa ne sax université Dakar sax matière boobu kenn jàngalewu ko fa te fa may waxee yow ni jaamal boo demee mag ñi ñu ngi koy jàngale te dañu wax ne xam-xam yooyu Euh, bokk na ci lit importance bi nga xam nit mënta rëdd jumaa te xamoo xam-xam yooyu parce que jumaa boo koy rëdd ci ay repères yi ngay am ci ay biddiw nga koy jëlee moom bokkoon na ci mag ñi nga xam ne ñoom moo njëkk a génne ci réew mi dem jàngi xam-xam boobu Mauritanie tey mën nañu wax ne ñi ko jàng ci réew mi ñu ci ëpp moom lañ ko jàngee donc ak yeneen xam-xam yu bari def na fukki at ak juróom bi mu demee fukki at ak juróom après mu dellusiwaat toogaat ndar ab diir bu xaw a yàgg bi mu jógee ndar ñëw Kajoor dëkk bu ñuy wax Kàkkun jógee Kàkkun dem dem dëkk bu ñuy wax Njare dem Njare dem dëkk bu ñuy wax Serifloo bi mu nekkee foofu nag way juróom bu jigéen bi nekk Saalum sàkku ci moom ngir mu ñibbisi parce que gis na ne jàng na ba am xam-xam àdduna fu nekk ngi nit nit fay jógee di ñëw ci moom pour wut si xam-xam te te mu nekk doomu Saalum te gis na ne mu ngi bëgg installé Kajoor si la ko sàkkoo nag mu ñibbi si mu ñibbi si Saalum si la tàggu ñoom Sidi Hadj Malick ak ak sëñ euh, sëriñ Samba Tukulóor Ka ak sëriñ Thierno Alaaj Daraame ak Cheikh Ahmad Bamba parce que moom ñoom ñoo bokkoon jamono léegi seen leen tàggoo ne man foog ma delluwaat Saalum parce que sama waajur bu jigéen sàkku na ci man ngir ma delluwaat Saalum pour euh, jàngale ji foofu. wax nañu loolu mooy sababu retourné am ñëw Saalum bi mu ñëwee Saalum itam mu dellusiwaat dëkk cosaanam bu ñu wax wanaar bi mu ñëwee foofu Saalum yëpp yëg ne El Hadj Abdoulaye Cissé ñibbisi na mbooloo mi di jógee fu nekk di ñëw pour jàng si si moom bi mu ba gis mbooloo mi bëri na mu gis na xëy na bu nekk waaye bi xat na. mu ne kon na jógee wanaar dem dëkk bu ñuy wax ndimbare ci benn grand frère bu nekkoon foofu bi mu demee ci grand frère boobu nekk fa ab diir léegi nag si la xelam daj na kon dafa war a sanc dëkk boppam ndax gis na ne mbooloo miy ñëw ak taalibe yi xëy na nekk ci dëkk boo xam ne moomu ko loolu dina doon problème léegi nag si la décidé pour sanc dëkk boppam si la sanc dëkk bu ñuy wax jaamal 1910 la sanc jaamal toog fa di jàngale ba 1925 mu génn àdduna bi mu génnee àdduna doomam bu ñu alaaj baabu marid si nekk sa mooy jur moom moo nekk ci xilaafa gi 1925 ba 1981 donc léegi actuellement doomam yi jeex nañ ki fa nekk xalifa tey turandoom la sëtam la sama grand frère la moom moo fa nekk xalifa tey waaye teewul lépp loo xam ne mag ñi amoon nañ ko fa ci comme naal ci comme ay xalaat ci comme ay projet yàlla def na loolu lépp ngay wéy donc lañ fa lañ fa bàyyoon ci wàllu jàngale ci wàllu yar ci wàllu liggéey ba léegi loolu moo fa nekk ba sax dañ naan jaamal moom ñett rek la am ku nañ fi dëkk bi itam loolu lañ ngay ñàkk wax mooy dëkk bi ku fi ñëw jàng nga fi def wala liggéey wala jaamu yàlla borom dëkk bi itam loolu la ñaanoon ci dëkkam ba dëkk la boo xam ne kenn du fa kenn du kenn du tëgg sabar dëkk boo xam ne kenn du fa kenn du def musique dëkk la boo xam ne ku fay tuxi da koy nëbbu lépp lu lislaam bañ tere nañ ko ci dëkk boobu donc ba léegi loolu moo fa nekk ah, mag ñi di ko doxal njaboot gi kon ne di ko doxal Euh, ziare bi tam loolu mooy objectif bi maanaam pour revisiter waat ay ña ay ay ay ay œuvre am ba ndaw ñi mën ci jot ba génération yi ko xamul mën ko xam loolu ci la famille bi nekk ba édition bi nga xam ne moom la ñu waaj mu nekk vingt maanaam vingtième édition ci ren euh, ñu tànn thème boo xam ne nag mën na mën nañu wax ne borom jaamal ak jikko yi borom jaamal ak àqu dëkkandoo parce que loolu ñu gis ne thème la yu am solo yoo xam ne tey jamono soxla na ko loolu moo tax ñu tànn thème boobu Euh, di ci woo ndaw ñi surtout di ci woo borom xam-xam yi di ci woo xalaatkat yi di ci woo nitu diine yi di ci woo mboolem Sénégal. waaw programme bi moom incha allah mu ngi commencé ajjuma waaw ajjuma bu ñu julee tàkk bu ñu julee tamit su pare danañu def wasifa comme ni ko bépp bërëbu tijaan di defee bu ñu defee wasifa ba pare dellu ci kër yi reer bu ñu reeree ba pare ba vingt une heures allah si la ñuy def forom boo xam ne. Euh, mën nañu wax ne thème central bi mooy la vie et l'œuvre de El Hadj Abdoulaye Cissé borom jaamal ñu tànn ay borom xam-xam yu mag ci réew mi euh, donc jox leen ko comme ni ma ko cité sànq sama biir wax docteur Thierno Wa nekk directeur institut islamique kenn si ñi nga xam ne ñoo war a taxawaaye programme boobu ak docteur Ousmane Dramé mi xam ne moom teesu doctoraam ci borom jaamal la ko def euh, nekk IFAN nekk chercheur moom itam kenn la si ñu war a def thème yooyu. oustaz Ahmad Sëtu mi nga xam ne way juram moom la laa jàpp lay Cissé borom jaamal dénkoon daara ji moom itam incha allah kenn la si ñi nga xam ne ñoo war a def thème yooyu ak oustaz Alaaji Aliou Cissé bi nekk lycée Malick si bu Thiès nekk ci njaboot bokk si njaboot bi kooku itam kenn la si ñu war a def programme boobu loolu mooy programme mu ajjuma bi léegi bu ñu xëyee incha allah samedi ci suba fas nañu yéene wàccee kaamil comme nañ ko daan defee at bu ne Euh, at bu nekk danañ fi jàng kaamil yu limoo limu yoo xam ne nombre bi nombre bu am solo lay doon léegi bu ñu jàngee kaamil yi incha allah ba pare euh, toll ak kaamil yi di pare mu tombe waxtu añ euh, nit ñi añ dem ci kër yi dallu bu ñu toogee ba 4 heures incha allah aussi la cérémonie officielle bi di commencé cérémonie officielle nag ku ko wax wax délégation gouvernementale bi nga xam ne ñoom ñooy ñëw ñi nga xam ne ñoom la président de la république di yónni bu ñu ñëwee indi kàddu président de la république njaboot gi déglu leen. buñu paré ki nga xam moy porte parole bi seigne Ousmane Cissé mom itam tontu len ci ndigalu khalifa bi ah, lolu moy programme cérémonie bi buñ ci joggé itam ci guddiga amna am go gàmm fas na def ko ah, tafsir Abdou ah, tafsir saxo di rakku aladji Ibu saxo don kenn ci njabot gi mom moy taxawé gàmm gi nga xam mom lañ fas yéene def ko ci guddigi ca itam seigne bi dana ñëw ñaanal talibi bi ñaax len ba déwén loolu mooy programme loolu moom euh, loolu moom def nañ def nañ ci def nañ ci CRD yi def nañ CDD def nañ lépp loo xam ne war nañ ko def ci wàllu disposition pour mën a accueillir gan yi ci condition yu baax loolu comité bi ñu ngi ciy liggéey te itam comité boobu am nañu habitude di ko def incha allah gan ñi nañu daan ñëwee di jógee bitim réew di jógee fu ne ci àdduna incha allah bu ñëwee ñi leen di tatagal danañ leen dalal yóbbu leen téye leen ci condition yu baax loolu moom noonu lañ koy defee. li nga xam ne te mooy wàllu sécurité comme ni ma la ko waxee def nañ CRD bi euh, commandant bi nga xam ne moo nekk Birkelane euh, ci lépp lu jëm ci wàllu sécurité pour gàmmu gi ñu sécurité ak pèlerins yi nga xam ne ñooy jógee feneen di ñëw incha allah lépp lu jëm ci wàllu sécurité loolu moom incha allah euh, autorité danañ ci taxaw incha allah <laughs>